salaamaaleykum waa Parcelles va mal maa ngi leen di di leen bëggee di leen char bu baax a baax man la Boubacar MC président du mouvement force pour la jeunesse waaw dañu ñëwaat pour recadrer waat yenn parcellois yi ci yenn propos yi def yooyu baaxul yooyu saaga sa gox la xeeb sa gox la parce que tey bu ñu waxee élection mairie yi di ñëw législative yi di ñëw Moussa Sy dafa war a jóge nit taxaw naan Moussa Sy bu jógee ku fi topp Moussa Sy ban bagage intellectuel la am la mënte gars yi ko loolu laa bëgg ngeen wax ma loolu bu rombee def na fi de 2009 à 2020 qu'est-ce qu'il a foutu aux Parcelles Assainies Moussa Sy deful parcelle dara dara dara te le budget de de de de la mairie des Parcelles Assainies nee nañ ça s'articule autour de 1 milliard donc cela veut dire que 10 ans 11 ans yi fi def je ne je ne sais pas 10 ans yi mu fi def dugg na ci 20 milliards mais 20 milliards yi dugg mairie fan la feeñ ci parcelle wax lan ma wax lan ma ko parcelle benn gox boo xam te ne 350 000 habitants ñoo fi yeewu parcelle hôpital maa Abdou centre de santé la. noraat dispensaire la mais loolu c' est une honte pour la pour les Parcelles Assainies loolu dafa ñaaw ci parcelle canalisation yi yàqu na parcelle amul sécurité parce que 300000 habitants benn commissariat mënu ko yor comprendre nga suñu centre sociaux bi ñu amoon fee di ci def suñu concert jeunesse bi di def seen spectacle ñenn ñi di def seen yenn formation Moussa Sy toj na ko Moussa Sy defaru fi dara dara dara dara man je ne suis pas mais képp ku ànd ak moom na na ma Moussa la fi def insolent réew xamul boppam donc genre nit yooyu soxlawuñ ko Moussa Sy du mécanicien du politicien du ingénieur du dara amul benn qualification wax leen man lan lay liggéey c'est un politicien wax bu bari rek wet wet wet ba pare c'est un traître il a été avec Pape Diop Ablaye Wade Ablaye Wade daanu mu ànd ak Khalifa Sall ñu tëj Khalifa Sall mu daw génn taxaw wax lu ne Macky Sall ne ne ne ne ne la haute magistrature du Sénégal ils sont au sol du président moom gëmul loolu gëmul justice Sénégal mu waat fa mu ne élection législative yi dañ ko truqué moom il a des euh, am na ci ay preuves du tangible parce que euh, l'État est en en complicité avec la DAF ils ont fait des tris sélectifs des trucs du genre comprendre nga mais quand même ça suffit ça suffit ku mel noonu soxlawuñu ko ku mel noonu soxlawuñu tey mu xeer ak ànd ak Macky Sall di ko tagg tagg ay membres on n'a pas besoin de ce modèle de politicien soxlawuñu ku dul wax dëgg askanam soxlawuñu ab fenkat soxlawuñu ab traître il est temps qu'il il est temps qu'il dégage ba pare dinañ ko auditer ah dinañ ko auditer milliards yooyu dugg ci keesu Parcelles dinañ wax fu mu de il est temps il est temps que les choses changent en tout cas ñi pare pour nekk maire Parcelles takk leen seen ceinture wàcc ci terrain bi génn seen oto yi wàcc ci terrain bi boo jëlee da ngeen wàcc ci terrain bi de c'est pas ay non chocolat nekk ci ay panel boo woo di jaay intellectuel c'est pas ce qui change la chose gis nga gérer mairie soxlawul ay jàng yu bari soxlawul dara da ngay bëgg sa gox parce que gérer une mairie c'est c'est c'est c'est savoir comment gérer la gestion de la cité loolu kese la ak amour bu ñu ci am mais ñun ku ñu am amul benn politique xamul lu mu am dem ci marché yi daaneel mbaar yi xeex ak ambulants yi saagal leen menacer leen ñëwaat toog ba pare mu dem jël benn annexe di fa dépenser presque 40 millions par année mais 40 millions yooyu xajul ci parcelle 40 millions yi muy dépassé ci annexe bi ci parcelle mais Moussa si bu ñu fontoo demal sa yoon ñun soxlawuñu la modèle de politique bi ngay def bugguñu ko demal demal demal on en a marre de vous ay golo lañ rek garab la ñuy jàpp bu garab bi di waaj daanu ñi la ngaamu ci beneen garab ci beneen garab ils sont des prostituées politiques ils font partie des vagabonds de la transhumance nous on n'a pas besoin de genres de politique dans ce pays il faut que les change na jeunesse bi jóg ñëpp jóg ñu taxaw ci tali bi max leen force pour la jeunesse mouvement bi pour jeunesse bi la ñun dañu war am suñu place ci société bi ah parce que ñun ñoo ëpp ci réew mi mënuñoo am oto yu mool mënuñoo am liggéey bu baax dañuy xëy di daw di taxale mënuñoo am dara depuis indépendance pas yee fi nekk di transhumé di lekk xaalisu réew mi di ko jox yenn maaraan nante yi di ko jox waaye mais ça suffit ça suffit